ces sénégalais de la diaspora nga xam ne euh, fa ñu nekk sori na lool. waaye mm. terewul Walfadjri la ñuy wéttalikoo euh, ngir di mën a am ay xibaar ci biir réew mi Awa Diop Ndiaye. jërëjëf euh, Issa niñ ko waxtaanee Mimi déclaré woon candidat am candidature am pour élection présidentielle bu waaye li mu yàggoon di xeex moo di président Macky Sall warul bokk ci course présidentielle bu 2024 tey jii mu mel ni. elle a pesé de tout son poids par rapport ak décision bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko tey ji au sein de votre euh, formation politique Bassirou naka ngeen koy apprécier waaw xanaa di sant yàlla mhm. euh, di sant yàlla dans la mesure où euh, dañuy wax ne bras de fer bi nga xamante ne madame la présidente Aminata Touré mu ngi ko nekk ko doon def diggantem ak le président de la République président Macky Sall Euh, ci wàllum troisième mandat bi bras de fer boobu Mimi Touré gagné na ko c'est d'autant plus que tey le président Macky Sall li ko reculer loo ñëpp xam nañ ne du coobareem parce que y une forte pression boo xamante ne am na au niveau national ak international euh, yi mobilisé wu takku surtout particulièrement ñi nga xamante ñoom ñooy la diaspora ak tamit ndaw ñi rawatina jigéen ñi fépp fi nga xamante ne nekk doomi Sénégal nekk na fa maanaam mëne na bataille bi euh, à sa manière ba tey ñu pousser le président Macky Sall euh, ba mu dal di reculer renoncer li nga xamante ne moom mooy euh, troisième candidature bi nga xamante ne il c'était illégal et moralement tamit c'était impossible. mais est-ce que jàpp ngeen ne euh, vous avez pesé de tout votre poids comme ni ñu koy waxee parce que tey jii euh, Macky Sall nee na c'est son bon vouloir pour sàmmonte ak li nga xamante ne moo di kàddoom moo tax mu def ko mais euh, du benn pression boo xamante ne moo ko amené à renoncer à cette troisième candidature. waaw xam nga le président de la République du taxaw fenn di naan. dañu dafa am pression bu ma reculer loolu moom Euh, ñëpp xam nañ le président de la république ku ko déglu keroog attentivement euh, lan la wax amoon naa droit def une nouvelle candidature loolu dafa am lu mu sous-entendre lu mu sous-entendre parce que li mu sous-entendre moom mooy depuis bi ñu ko réélu en 2019 le président de la république objectif am moom mooy defaat beneen posé waat beneen candidature pour mën a am un troisième mandat ci loolu la doon liggéey ci loolu la doon dox ko wax boo gisee musu ko wax waaye ci ay jëfinam jëfin moom mooy képp ku mës wax ci biir APR ak benn bokk yaakaar le président Macky Sall am na sañ-sañu def troisième mandat président defal la promotion képp koo xamante ne nee nga ci 2019 ba 2023 président de la république amul droit amul sañ-sañu euh, poser une trois euh, ou troisième mandat le président Macky Sall dàq na la wàcce la génn la biir APR ak benn bokk yaakaar ba pare leneen li également li ko wundu moom mooy nga nekk un président de la république say nit di say responsable yu mag di organiser ay meeting di organiser tey euh, di la defal euh, di la di la di di la di tey di la defal ay cérémonie d'investiture di ko organiser un peu partout yow nga koy gis ba si sa premier ministre taxaw ne am nga sañ-sañu déposer euh, une troisième pose postuler waat en 2024 waxul sax 2024 waaye dafa ne même 2029 bi ñu dégloo euh, le premier ministre euh, Amadou Ba fële ca Jidda Caaroy kaw nee na waxul sax 2024 waaye même 2000 29 le président de la république amoon na sañ-sañ pour postuler waat en 2029 loolu yëpp le président de la république doon ko dégg waxu ci mel ni ku leen tey jàppale ci loolu nga xamante ne xëy na moom la bëggoon a mel waaw xam nga bu waxoon ne leen bu ci kenn maanaam euh, li ñu wax noonu bu ko weddi woon cela veut dire que nit ñi dañ cee la xam ne du dem waa mais xam nga nee na bu nee wii xam euh, damay dem peut-être nit ñi mën nañoo génn di manifester bu nee du dem partem tas donc suspense bi pour mu maintenir ko xëy na ah, mën na leen a bàyyi ñu entretenir le débat comme ni mu def ak seen leader Aminata Touré xëy na bi muy génn président Macky Sall xamoon na que ni du def troisième mandat moom mu war a téye suspense ou pas la constitution est claire et dafa am réforme ci biir constitution bi en 2019 mu am point yoo xam ne changé nañ ko le président de la république moom si jëm boppam mu taxaw ne changé wul constitution bi de fond en comble li nga xamante ne moom mooy la durée du mandat kese la ñu jëlee de sept à cinq ans donc la constitution de 2001 moom moo nekk en vigueur ba tey jii nii pratiquement donte changé nañ ci ay quelques points mooy lan le nom la durée du mandat mooy de sept à cinq ans mhm. yu mel noonu kase lañ ci li léegi bu fekkee ne la constitution est très claire ñëpp xam nañ ne le président Macky Sall def na ñaari mandat am bi mu gagné euh, en 2019 lan la waroon def mooy confirmer li nga xamante ne moom la constitution bi digal mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs donc su li ngay wooyee suspente yëpp moom waru ci woon nekkaat di ko animer di pousser nit ñi di ci gën a parce que li fi xew jot a xew yëpp moom mooy ndey mbili gi parce que moom moo bàyyi li nga tuddee suspense mu continuer te amu ci woon sañ-sañ moom xam na ne amu ci woon sañ-sañ waaye moom li mu bëggoon mooy di yóbbu affaire bi di yóbbu affaire bi ba dernière tey ci temps final bi temps de jeu bi mu dal di def lan. mais à quelle fin à quelle fin pour postuler waat. Ah le président de la république. lu mu ah bëggoon mooy def troisième mandat. waaye nag la pression bi nga xamante ne ku mel ni madame la présidente Aminata Touré mën na la comba au niveau international ak tamit au niveau national à travers une très bonne communication boo xamante ne fexe na xoolal tey euh, l' interview bi nga xamante ne noonu na ko le 28 mars 2023 euh, euh, ci France vingt 24 ci siège ONU foofu interview boobu dafa dal parce que ci siège ONU la toll di wax ak l'opinion internationale xamal leen ne le président de la république amul sañ-sañu pour def troisième mandat opinion publique bi yëpp. nga approprié wu question wu troisième candidature bu le président Macky Sall ba récemment ba le ministre des affaires étrangères fa fële nga xamante ne moom mooy Union européenne tey euh, l'ancien candidat bu République tchèque bi nekk tamit également député Union européenne mais dafa souligné waat loolu ba pare jël les propos de madame la présidente Aminata Touré xamal ko ne comme l'ancien premier ministre Aminata Touré li mu waxoon mooy lan le président Macky Sall amul sañ-sañu postuler waat li nga xamante ne moom mooy en 2024 pression boobu ak diaspora bi campagne bi nga xamante ne doon nañ ko def marche yi ñu doon organiser 80 euh, journalistes plus de quatre-vingts journalistes tamit signé. pétition pétition xamal le président de la république amoo sañ-sañu. c'est-à-dire cette pression là moo forte ci le président Macky Sall. d'accord yooyu yëpp du ko du ko sax xool donc est-ce que du dalee na ndax rek peut-être ngeen di ko justifier que ni yéen a tax mu reculer. waaw non xam nga le président Macky Sall. ku ko xool campagne yëpp moom li ñu doon dégg mooy troisième mandat. Aminata Touré ku ko xool ku ko xool keroog on se demande qu'est-ce qu'elle va devenir après. Issa mhm. ku xool keroog kanamu le président Macky Sall xool tonation bi xam ne dafa. cédé malgré lui. malgré d'accord ah dinañ ci ñëwaat euh, Bassirou mais pap euh, depuis lors on s'attendait à ce que président Macky Sall génn ñëpp ne woon ouf. Mm-hmm. bi mu ne duma ma présenté wu jàpp ne loolu mooy signe de stabilité. Mm-hmm. te loolu moo ñu mën a jëmee ci réew mi mais tey jii dañu gis ñu bari également jàpp ne surtout les politiques ne. euh, les Sénégalais la population ñoo peser de tout leur poids mais également la communication sur l'international également moom moo indi que le président Macky Sall il avait la volonté de se présenter mais tey pression boobu moo ko delloo ginnaaw. est-ce que da ngay partager avec vous. mais awa tout euh, n'a pas cessé de poser des actes yi nga xam ne ay ñooñu di poser actes yi nga xam ne qui vont dans ce sens de créditer. une troisième candidature ça moom nekk que c'était pas dans sa tête kooku c'est c'est c'est leur kii nga xam ne mooy Mouhamadou Issoufou président Niger mm-hmm. ba mu toogee ba ay ñooñam ay militant am ba ci propre famille am di ko wax troisième di ko wax waxu troisième mandat dafa activer le procureur de la république ñu jàpp ñoo ñëpp tëj leen ci kaso bi parce que mu ne moom bëggul ku ko wax waxu troisième mandat parce que xeebul nigériens yi ba yaakaar ni que parmi ces millions de nigériens amul kenn ku ci mën a remplacer mais par contre ce qu'on a vu ici mooy que président à partir de képp ku ne il n'avait pas droit troisième mandat dàq na la c'est-à-dire ba mu la joxoon nangu na ko donc loolu rek c'est un faisceau bi nga xam ne qui est assez indicateur euh, sur lu mu bëggoon def beneen affaire bi mooy mm-hmm. tous les actes qui ont été posés moi je peux pas admettre mënuma d'accord que président qu'il ait pu se faire autant d'ennemis parmi les 17 millions de Sénégalais par des violences par Euh, par des injustices loolu yëpp nii nii nii rek pour quelqu'un qui devait finir son magistère dem yoonam li ñu xam ci àddina bi li ñu xam ci àddina bi y a plein d'exemples à Faso président bi nga xam ne da ngay geexal sa ay wax fa dëgg yàlla sa mandat moom da nga koy rafetal nooyal di jël ay décret de yuy sedd ainsi de suite ainsi de suite ba ba ngay dem booy dem nag gars yi jàpp sa tur dugal ko ci histoire. Mm-hmm. mais président ba nga xam ne yow ba nga la falee sa dernier mandat ba keroog ba ngay waaj a geexal ay 6 mois avant amul kër gi nga xam ne doo fa dugg te du la ne ah ñun suñu jarbaat wala suñu frère wala suñu sœur mu ngi ci kaso bi y en a pas y en mm-hmm. malgré que effectivement il faut le dire <laughs> euh, si si magistère boobu tamit il a eu de très bonnes choses. mais néanmoins en tout cas une chose sur la question du troisième mandat c'est parce qu'il y a eu une pression surtout nag la pression de la rue ça il faut reconnaître qu'il y a eu une pression de la rue parce que c'est un président Macky Sall c'est un homme politique c'est un politicien sax du mën a c'est un politicien pur et dur il est de la même école que wadd xëy na chance bi wadd amoon te moom amu ko mooy que Wade bu nattee mu dëgër il s'est reculé mais moom reculer mënu ko. moom da nga a looloo tax ma ne lan est-ce que pression boobu la parce que ay événements yu gën a métti xew na fi te il a foncé pourquoi cette fois-ci euh, il a reculé. voilà bi bi yoon nag dañu wàññi loxoom. kan wala ñan. mais je c'est justement cette pression là mais awa ah, ah, ah imaginer nga nga nekk un chef d'État dans toutes les tribunes du monde foo dem ñu génneel la ay coupures de presse où on te dit que chez toi. il y a vingt trente personnes qui ont été tuées pour avoir exercé un droit citoyen on te dit qu'il y a sept cent personnes qui sont en prison parce que dañ ne ils sont contre ta politique ainsi de suite ainsi de suite ñaan la bon y a un opposant euh, bu ñu jàpp ni que qui a le plus de chances de te succéder actuellement il est en résidence surveillée entre guillemets de manière illégale c'est-à-dire loolu ñu la koy def ñi la koy def et puis nag dañu nekk dans un monde bi nga xam ne je dis aujourd'hui ce n'est pas parce que le Sénégal est un pays souverain ou la Côte d'Ivoire est un pays souverain ou il a des choses quand ça se passe la communauté internationale a à mhm. a, a son mot à dire parce que tamit ñun Sénégal que soient nos richesses on est hyper des institutions de Bretton Woods on est hyper de la coopération bilatérale mhm. euh, si l'Union européenne se lève aujourd'hui pour dire